wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu leer waaye nee na am na cangatug njara cangatug njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci am lu kawe sa njortu waaye nee na noppeegul de am na ndombo goo xam ne ndombog njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu këyit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt-quatre heures maanaam benn bis képp dinga nga ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi néew kattan la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yi yëpp yàlla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde diabète ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg a gis nag ma nga ca cité Aline Sow waaye képp ku bëgg a jokkoo moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal. ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéenekaay Elimane Ndiaye le journal bi fësal ca xët wu njëkk wo équipe nationale bu Sénégal ak i attaquant wam noppi nañu ngir tas équipe national bu bene li ko waral moo di attaquant yi Aliou Cissé woo ngir ñu jongante ñaari match yi ñu am attaquant yooyee saison deux mille vingt deux deux mille vingt trois bu ñu boolee li ñu dugal ci ay bit ñoom ñëpp mat na quatre vingt bit kon noppi nañu ngir tas équipe bu bene bi loolu la journal bi xamle waaye ñett ñi moom kenn du ñoom ci saison bii ñu génn muy Iliman Ndiaye mii ngeen di gis Habibou Diallo Nicolas Jackson ñoom ñett li ñu dugal ci ay bit ci saison bii ñu génn mat na cinquante bit juróom fukki bit ñett ñi dugal nañu ko kon attaque bu Aliou noppi nañu ngir tas équipe nationale bu bene ki ñëpp di xaar kay mooy ñancoo Sadio maane moom sénégalais yëpp namm nañu ko moom ak Ismaïla Sarr ndax ñancoo Sadio Mané saison bii ñu génn xam ngeen ne doxalut ak waa Bayern de Munich liñ koy ñaanal te bëgg ko moo di mu jugaat te ñaari match yi équipe nationale bi soxla na ko lool ak keneen kii di Krépin Diatta moom fa mu nekk ci AS Monaco doxalu fa liñ koy ñaanal te mu bëgg ko moom doomu Sénégal bi moo di fàtte jafe-jafe yooyee doxal ci équipe nationale bi ngir bu delloo ci AS Monaco mën a doonaat Krépin jaata bi ñëpp bëgg a gis loolee la journal bi xamle waaye capitaine équipe nationale bi tamit mi ngi ci journal bi muy Kalidou Koulibaly ñëpp dañuy ndaat naan diggante Abdoulaye Diallo ak Moussa Niakhaté dafa ñagas maanaam diggante bi rataxul dara mu ne seen diggante ñoom ñaar dara nekku ci jàmm ak salaam képp lañu séq li waral loolu nag moo di keroog ñoom ñaar bi ñuy nuyoonte ñàkk déggoo dafa am seen diggante loolu moo waral coow li waaye Kalidou bali nee na loole ñàkk déggoo képp la waaye seen diggante dara nekku ci te équipe bi yépp nag ñoo ngi ci jàmm di waajal ñaari match yi ñu am li ñu bëgg moo di bu ñu jàkkaarloo ak Bénin def match bu baax am ndam lu yaatu suñu ca noppee nag jàkkaarloo ak Brésil def match bu baax lool am ndam ci kaw Brésil capitaine équipe nationale bi di Kalidou Koulibaly mooy yëkkati kàddu yooyu. waaye journal bi tamit fàttewul final fur Ligue des Nations bi match bi ñu ciy njëkk amal nag tey jii la ñu koy jongante bu 18h45 jotee. Croatie bu Luka Modric mooy jàkkaarloo ak Pays-Bas bu Frenkie de Jong match boobee 18 h cinq lay door kon gaa ñi xaar leen ko. ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa record Ndiaye Aliou Cissé le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa am na lu muy waajal de mu di lan boole ñaar ñii ca défense ba ñu doxal muy Abdoulahat Diallo ak Abdoulaye sekk li ko waral moo di kat match bi ñu mujj amal Abdoulaye sekk doxal na Abdou Lahad Diallo nag gëj naa am temps de jeu te soxla nañu ko lool te match bi nag Sénégal qualifié ne ba noppi mën naa am nag mu boole leen ñoom ñaar ca défense ba ñu doxal te loolee nag lu mën a nekk la ku gis ni Aliou Cissé di liggéeye ci entrainement bi kon su amee bu mu bett kenn capitaine bi di Kalidou Koulibaly tamit mi ngi ci surnal bi la mu waxoon ca stade rek moom la dàbbali fii ci record nee na diggante Moussa ñaxate ak Abdou Lahad Diallo diggante bi dara nekku fi ratax na lool waaye ñin li ñu bëgg te di ko ñaan moo di am ndam ci ñaari match yi nga xam ne am nañu ko Kalidou Koulibaly moo yëkkati kàddu yooyu. ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe Kylian Mbappé le journal bi fësal ca wu njëkk wa jamono jii nag ku yi commencé ne génn foofee ca Paris li ko waral moo di Kylian Mbappé kat dafa xamal waa pari ne leen contrat bi ma fi am bu jeexee damay jugee ci club bi année en option bi noppi ma ngir yokk ko toog fii ci Paris loole nag yëngal na waa Paris gépp rawatina seenu président ndax ñoom loolu bëgguñu ko dégg li ñuy bañ moo di mu dem ba contrat am jeex takk mu nekk agent libre jugee ca Paris duñu ca am benn dërëm loole Paris bëgguñu ko loolu moo tax waa pari jëlagum ndogal nee na ñu ko su fekkee benn at bi doo ko yokk noppi nañu ngir ubbi buntu bi jaay la Mbappé nag nee na leen man mosuma leen a wax ni dinaa yokk benn année bi fa ma taxawoon démb nag filaa taxaw ba léegi ci fàttali moom Kylian Mbappé nag mosul taxaw wax ni dinaa jógee ca pari ci saison bii ñu dëgmal loole mosu ko wax li mu waxoon nee na mi ngi ca ba léegi saison bii ñu dëgmal ca pari lay football waaye contrat bi ko lëkkale ak Paris bu jeexee noppi noppeegul ngir yokku ko waaye Paris nee nañu ko su fekkee noppeegoo ngir yokku ko ñun noppi nañu ngir ubbi bunt bi jaay la nga dem waaye Kylian Mbappé nag waxagut ba léegi ne day jugee ca Paris loole faw mu leer ci bopp nit ñi ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa star sport Jack Grealish bokk ci staru Manchester City yi ak staru équipe nationale bu Angleterre la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa mbégte mi nag foo ko natt rek weesu na ko nee na club boobe di mënta Manchester City day gagné di gagné di gagné di wéy di gagné di am ay ndam loolee la Jack xam xamle ginnaaw bi ñu feetoo nag ci ñetti coupe yi nga xam ne jël nañu ko foo sànni mbàtt mu tag ca mbir du Manchester ya feet boobee jeex na jamono ji nag équipe nationale bu Angleterre la ñu dëgmali maanaam fa ñu jëm ndax équipe nationale bu Angleterre war na am ñaari match mu soxol euro 2024 ndax ñoom war nañoo jàkkaarloo ak Macédoine du Nord war nañoo jàkkaarloo tamit ak Malta ñaari match yooyee nag goney Pep Guardiola yi nga xam ne ay doomu Angleterre lañu buub nañu seeni kaaka dem ca équipe nationale bu Angleterre muy jaggir lig ci mi ngeen di gis Calvin Phillips Kyle Walker Stones ba ca Phil Foden juróomi jouru Pep Guardiola yooyu ay doomu Angleterre lañu kon jógee nañu ci fête bi ñu doon amal dem fekki Gareth Southgate mi nga xam ne mooy tàggat équipe nationale bu Angleterre ngir ñaari match yi nga xam ne équipe nationale bu Angleterre war na koo amal waaye jaggir ci nee na dañoo dem ngir yóbbaale ndam yi nga xam ne moom la ñu nekkee woon ci Manchester City li ñu bëgg moo di bi dem jàppale équipe nationale bi ñu am ay ndam ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Kylian Mbappé ak président am di Nasser El Khelaifi ba ca président wu Real de Madrid di Florentino Perez le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa feuilleton Kylian Mbappé ak Real de Madrid nag judduwaat na maanaam film bi judduwaat na ci merkato bii ñu nekk daaw nag la mbir mi juddu woon ñëpp jàppoon coow li fay na waaye dafa yëngatuwaat ci mercato bii ñu nekk li ko waral moo di kiliyaan Mbappé moo xamal waa pari ne leen année en option bi ma amoon ci club bi noppee guma ngir yokku ko wala paree guma ngir yokku ko loole nag waa Paris bëgguñu ko dégg Paris nee nañu ko wax ñu lu leerkat su fekkee noppi woon a ngir yokk beneen at toog ci club bi wëyal wax ñu lu leer ndax ñun kat bëgguñu nga jóge ci club bi te du ñu am ci yow benn dërëm su fekkee doo ko yokk nag wax ñu ñu teg la ci marché bi jaay la jamono ji nag waa Real de Madrid ñoo ngi xerawlu ndax ñoom jamono ji attaquant bu mën a dugal la ñu bëgg ndax Karim Benzema ma fa nekkoon jugee na fa te li ñu jàpp moo di Kylian mbappe mii neuf bu jekk la ca club boobee di Real de Madrid moo tax jamono ji ñoo ngi toog ci wet gi di xerawlu loole la journal bi xamle ñu jugee Marca yéene jël aas yéene kaay Brahim Diaz la journal bi fësal ca xët njëkk wa dama dellu si ci Real de Madrid ngir réussir fi maanaam ngir def fi jaloore Brahim Diaz moo yëkkati kàddu yooyu ginnaaw bi ko Real de Madrid able ca AC Milan mu dem foofe def fa ñetti at doomu Espagne bi dellu si waat na ca Madrid démb la ko présenté askan wi yëpp jox ko numéro 21 kon saison bii di ñëw moom lay boot di doxal ca Santiago Bernabéu nee na nag dafa dellu siwaat ci Real de Madrid ngir réussir ca club boobee moom Brahim Diaz waaye journal bi tamit ñëw na ci waa Barcelone Barcelone ànd ak déko nag matal nañu lépp ngir xaatimal contrat doomu Brésil bii di Vitor Roque jubbu nañu ak gone gi li ñu koy fay ak ñaata at la ñu koy xaatimal fi mbir mi desee kay moo di ci diggante ñaari club yi muy Atlético Paranense gi gone gi nekk ak Barcelone gi gone gi war a ñëw ndax Barcelone nag xam na ñaata lay jox Atlético Paranense ngir gone gii di Vitor Roque xaatim contrat officiellement ci seenub club Vitor Roque nag attaquant bu mën la muy def la gone gi footballu Brésil am nañu lool yaakaar ci moom ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Ansu Fati la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Ansu Fati nag day des ca Barcelone doxal ci saison bii ñu dëgmal loole nag du samay kàddu kàddu George Mendes mi nga xam ne mooy agent wam la ndax George Mendes ma nga woon ca Barcelone démb rek ñoo ngi leen koy wax ne leen kat bëggu-bëggu waa Barcelone moo di moom George Mendes mu fexe ba Ansu Fati ca club boobee waaye Ansu ak waa këram jóge ca Barcelone gën a leen li ñu bëgg moo di Ansu Fati des ca club boobe bind fa taarix loolee nag bi mu génnee ci réunion bi la ko xam le moom George Mendes nag bi mu leen waxee Ansu Fati day toog ci club bi ba noppi yëkkati na ay kàddu wax ci gone gi nee na Barcelone de bëgg-bëgg bi mu amoon moo di jaay Ansu Fati waaye maa ngi leen di artu gone gi phénomène la li muy def mën na ko lool te bis mën naa ñëw nag mu doxal ci Barcelone ba gagné fi Ballon d'Or ndax Ansu Fati mi football am na lool yaakaar ci moom kàddu yooyu nag du samay kaddu kaddu Jorge Mendes la Eric Garcia it mi ngi ci journal bi moom waa Barcelone teg nañu ko ci marché bi défenseur bi li wa Barcelone bëgg moo di bu ñu ca gisee xaalis jaay ko ndax moom kat yaakaar gi Barcelone amoon ci moom gisaguñu ko ba léegi. ñu jugee esport jël Mundo Deportivo Mundo nag tey ci NBA bi la ñëw NBA boobee nag jeex na final bi mi ngi doon dox ci diggante Miami ak Denver si waa Denver nag ñoo jël final boobe juróomi match la ñuy jongante ñeent ñi ñëpp nag Denver moo ca am ndam. kon jël nañu NBA bi waaye gëj nañu ko jël lool ndax 47 ans ñeent fukki at ak juróom-ñaar dégguñu daal di ca NBA ba maanaam nekkuñu champion bu ñu nekkee champion nag nañu ko sante di Joe Kicks gone gi doxal na ca final yooyee loolu la journal bi xam xamle waaye Ansu Fati tamit mi ngi ci journal bi moom ndogal li mu jël ànd ca ak waa këram moo di toog ca Barcelone doxal kon Ansu Fati dootul jógee ca Barcelone loole nag ki ko dëggal moo di agent wam di Jorge Mendes nee na Ansu Fati buggul jógee ca Barcelone googe te bis mën naa ñëw nag mu gagné ballon door ca club boobee loolee la Jorge xam xamle. ñuy jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Davide Fratesi le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa gone gi ma ngay football ca Sassuolo itali googee nag club yu mag yépp dañu ko bëgg te ñoo ngi koy bàyyi xel muy Juve Inter Napoli Lazio de Rome ba ca AS Roma bu José Mourinho club yooyu yëpp dañoo bëgg fraté si waaye jamono ji nag ki jiitu ci xeex bi ngir jënd ko moo di AS Roma jamono ji moo gën a jekku ngir jëlee ko ca Sassuolo yóbbu ko ci seenub club mu jàppale leen waaye AS Roma googee noppeeguñu ndax gone gii di Sakamakha dañu ko bëgg gone gi nag attaquant la ma nga ca West gone gi ak waa AS Roma nañu ci lépp fi mbir mi desee moo di ci diggante ñaari club yi muy AS Roma ak West Ham waaye gone gi ci boppam jox na kàddum waa AS Roma loolee la journal bi xamle bu dee Kalidou Koulibaly moom waa Inter ñoo ko bëgg rawatina ki leen di tàggat di Inzaghi wax na njiitu club boobee ne leen lu ngeen mën di def fexe leen ba indil ma Kalidou Koulibaly su ngeen ko munul jëndit fexe leen waa Chelsea abal leen ko ndax moom kat day jugee ca Chelsea ndax ki leen di tàggat di Mauricio Pochettino konte wul ci moom kon fexe leen ba indil ma ko ndax moom défenseur bu mag la am na expérience te miin na lool Serie A bi ndax nekkoon na cen ca Napoli te Skriniar daf fiy jógee kon man Inzaghi li ma bëgg moo di ngeen fexe ba indil ma doomu Sénégal bii di Kalidou Koulibaly ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Maximiliano Allegri mi tàggat yuufe le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa itali gépp wala ñi ëmb footballub itali ñooy artu waa Juve ak club yi nekk ca itali googe ndax mbir mi fi xewoon daloon waa Juve ñu leen di jiiñ ay mbuxum ba nangu ay poñ ci ñoom mbir moome li ñu bëgg moo di mu